sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraayi mbokki lu xew tv dikkaat na ci seen waxtaanu safar gi nga xam ni moom nañ leen jagleel ci weeru safar gi nga xam ni bëccëg gu jot dinañ leen jox vidéo juróomi minute boo xam ni dañ koy tàmbalee ci jaar-jaari sunu sang bu tedd boobu di Cheikh Ahmad Bamba teg ko nag ci hinda zikru saalihiina tanzilu rahma fàttaliku nit ku baax yërmande la rawatina fàttaliku koo xam ni fàttaliku ko alxuraan nee na wa ma bi nixmat rabbika fa xadis xéwal li leen suñu borom defal di leen ko waxtaane te ñun taalibe seexul xadiim mi xéwal gi ñu yàlla def li ci gën a màgg mooy jëmmi Serigne Touba ñu ngi tolloon nag fa nga xam ni mooy bi mu nekkee Touba nekk fa wéet fa di jaam borom bi subxanahu wa taala noonu la fi nekkee kenn ku ne boobu Serigne Touba jot naa defar ñu bari ba kenn ku ne yóbbu na la ci ci ci dëkk nga nekk fa. defar ñooña turu Sëñ tubaa di law ci réew mi tubaab bi tàmbalee am ak ñaaw njort ci jëmmam ñenn ñi sëriñ si tàmbalee am ak fiiraange ci jëmmi Sëñ tubaa ndax kenn ku ne xelam ak xalaatam yépp ma ngay jëm rek ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadima Rasul ba nga xamante ni moom Cheikh Ahmad Bamba Xaadima Rasul jóge na tubaa dem Mbàkke Baari ca Jolof nga xam ni booba jamono tubaab bi bind na lettre convocation ngir woolu Seexul Xadiim te Sëñ Tuubaa moom du sol daal la di wuy buur te amu ci ndigal suñu borom jala yebale rakkam ju tedd jooju maam Thierno borom Daaru Moxti ba mu ko yebalee maam Thierno dem jël leetar ba jébbal ko gouverneur xamal ko ni ko sëñ Touba moom ci leen rek la nekk ndax leetar ba la ca ne mooy daa xamal sëñ Touba ca la mu nekk gouverneur ni ko jaamu yàlla la nekk ci santaane suñu borom tey daw lépp lu yàlla suñu borom di tere nga xam ne ci kaw loolu ba maam Thierno accès sëñ Touba la mu ko xamal dana ko na mu ne ko Mbàkke bul ma nettali ndax ba nga tollee ca gaarub Louga am na xorndom doon ndox sa mbagg ba nga koy faxas sax yëg naa ko nga xam dani keroog te da waa ji xam ne jot na ndigalu borom bi subhaanahu wa taala daal di jël loxoom mu tedd ba moom sëñ Tuubaa teg ko ci lo bopp sëñ Modou Safa jàng baqara jël loxo càmmoñ ma teg ko bopp sëñ Fàllu jàng ca Ali Imran ñu leen dékk naa leen seen bàyyi no nga xam ne boobu sa tund jeewal lam naan ay yastaminillahu hinda jeewali iblisa isna day tuhu bi yaa wali nga xam ne foofee ca tund woowee la soldaar sa ñëw fekk sëñ Tuubaa wàcc na ngir jot ndigal suñu borom ngir war a dem liggéey lislaam ndax booba siñee na samaaniya hijajin mu juróom-ñetti at yu manqué tuuti ci ay weer ngir sëñ Tuubaa jóg ngir liggéey lislaam na ko sëñ Musaa ko waxee yan ba nu yoroon xutbu ya ak lab daal ya te attanuñu ko moo ko yenn ba noppi foog raw gaañe kooku mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne keroog ba tubaab yi agsee tund jeewal dañ ko xamal ni ko gouverneur Ndar moo nu yónni yow la jël si Sëñ Tuubaa toog ni leen jot naa ndigul suñu borom fii laay fanaan ba fajar ma doog a dem ñooñu xamal ko ni ko du du faaw daan la yóbbul gouverneur ndax gouverneur nee na te du tëdd ci lal te fanaan fi woon Ndar waaye Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul xamal leen ni kat suñu borom day xamal ma ne fajar laay dem waaye ba nga xamante ni tubaab waxante nañu ñoom leeraayu ahlu Badar gi nga xam te ni ñoo wàcc tund jeewal moo tiital ka nga xam ne moo jiitaloon soldaar yi ndax booba mat na ñetti téeméeri soldaar kenn ku ne yor sa ngànnaay def ci ay fital ba mu fees dell yàkkamti woo lenn lu sëñ Tuubaa raf ba nga jël ba kanam waaye leeraay ahlu badar gi nga xam ne moo wàcc foofee ca tund jeewal moo tax tubaab bi di xamal sëñ Tuubaa ko mba xam duñ la bàyyi nga fanaan te ñii nga xam ne ñoo fi ñëw te duñ ay nit ñi daal di dem sëñ tubaa xamal leen ni leen ñoom ñoom ñii de ndigal suñu borom rek lañ fi indi ci kaw loolu ca la sëñ Tuubaa fanaane ba fajar jotee tubaab bi kenn ku ne nelaw sëñ Tuubaa mujj mooy yee tubaab bi di leen yee ñoom ñëpp jóg ci fajar gi ñoom tubaab yi seen xel boobee la nga xam ni kin àndal am na lu mu àndal te mooy borom bi subhaanahu wa taala jëlan waajee ànd ak sëñ tubaa wuti ndar jaar Louga jaar kokki ba àgg ndar ban àggee ndar sëñ tubaa def na ndar lu mat ñaari weer fan la daloon kër Ahmed Khoureyssi ndax kooku daa bokk ci càllal yi nga xam ne daa bokk ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nan yemani foofu ci waxtaan wi ci bureau ba ca ndar incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi